jër ngeen jëf ci teewlu bi mbokku téléspectateur yu global télévision ngir bisimila ci xibaaru marax bi léegi léegi ñu wax leen di ci gën a li ci gën a fës nag bokk na ca campagne de commercialisation Sonacos nag li muy mbëbët mooy daal di ah, jël lu tolloog juróom-ñaar junni ci ay ah, ndaw ah, daal di leen di indi nag ngir rek ñu daal di ñoŋal li nga xamante ne nag moom mooy campagne de commercialisation jëm ci gerte gi ki ko xamle nag mooy directeur bi di El Hadji Ndane Diagne daañ tellu ay kàddoom ci biir yaatal gi ci biir yaatal gi dinañ dem fële ca zone A ña nga xamante ne nag ñoom ñooy yeewoo ca gox bale amoon nañ gox boobu lee amoon nañ àpp jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir daal di nag naqarlu la nga xamante ne moom mooy euh, travaux d'assainissement yi nga xamante ne nag dafa yéex ndax atum 2021 Euh, jàpp 2022 ca lañ ko dooroon ñu gis ne nag euh, conseil municipal yi bu Grand Dakar boobu ba léegi nag ma ngay bàyyi ndox yu bon yi foofu euh, foofule ca gus gox bi ñuy wooyee zone A ba tax na nag ñi nga xamante ne ñoo fay yeewoo ñu ngi ci njàqare ba tey daanuñ si dellusiwaat ci biir yaatalu xibaar yi ba tey ñu desandi ci biir xibaar yi xibaaru bitim réew sax moo nar a buur yile xibaar ñu gis ne nag Kremlin ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yi dañoo daal di déggoo ci ab euh, ngir rek daal di weccante nag ay prisonniers euh, juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-benn euh, jàpp nag ñaar fukk ak juróom-ñaar. ñeent ngeen baal ma ci nag libération lu tollook ay américains yoo xamante ne nag dañ leen war a jële jëlee foofu nag daal di leen delloo seen réew kenn ci ñoom euh, bokk na ci taskatu xibaar bi ñu duppee Wall Street euh, bi nekkoon Wall Street euh, Journal di Evan Euh, Gersovic moom mi nga xamante ne nag ñu ngi ko jàpp ca Russie atum 2023 ba léegi euh, bokk na ca nag ña nga xamante ne war nañu loon war nañ leen delloo foofu euh, Turquie nag moom jàpp na leen nag sax daal dinay coordonné ab accord ngir rekk loolu mën a yemb ba tey daanañ ci dellu siwaat ci biir jotaayu xibaar yi mbokk yi loolu moo nekkoon li ci gën a fës bu ngeen taaxee loo ñu faram ko jërë ngeen jëf ci teewlu bi 19h euh, tegal na juróom-benni simili société bi nga xamante na nag moom mooy euh, Sonacos euh, taxaw na temm nag ngir yokk li nga xamante ne nag moom mooy production maanaam la muy joxe ca diwlin looloo waral nag mu daal di bëgg recruter lu tolloog juróom-ñaari junni ci ay ndaw ñoo xamante ne nag ay saisonniers la ñuy doon ngir rek door comme campagne de commercialisation jëm ci wàllum gerte. Euh, bi nga xamante ne nag bëgg nañ koo dëm dëgmal li leen nag di ab xibaar bu neex bu am solo boo xamante ne euh, jëwriñ ji nga xamante ne lañ dénk kër googu di Sonacos euh, di El Hadj Ndane Diagne moo ko xamle Aïssatou Ba micro Le constat c'est d'abord euh, je vais dire une note de satisfaction Euh, par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain. waaw li moy gis euh, ci euh, li nga xamantene ni moom mooy ci terrain bi dal na xel moo mën wax sax ni daanaka don na lo xamantene ni xawna ci amee njort gu rafet ndax nak gis na ni ñi fi liggéey bëgg nañ ko lool ñi fi liggéey tamit bëgg nañu kër gi ñi fi liggéey tamit ñi ngi xar seen tànk tubéy ngir rek kër gi mën a di jukku daal tamit mën a ci kaw xëy na nag nit ñi nañu am ay gis-gis yo xamantene ni ci bile kuréel di Sonacos donte sax nak daanaka la ñu gis euh, du bokk ak li am ndax nag duñu lañ bëtt ba ca biir waaye daal lu ci mënti xew ñëpp xam nañ ni ci at yi ñu génn gis nañu ni li jëm ci wàllum gerte gi daanaka dafa néew lool euh, buñ ko méngee ak liñ doon produire loolu nag euh, am na ay jeexital xam nañ ko xam nañu tamit fan la coow li nekk waaye tamit fan la jafe yi nekk tey nag nañu fexe def suñ gént lay kàttan daal ba fekk diwén ñu jéem a xool mën a def daal li jëm ci wàllum gerte ngir rek ñu mëna am doole ñu ko doy ñu daal di ko amalaat ndax fu mu nekk nii daanaka mën nañu wax ni amut benn contrat à durée déterminée ñi fi nekk ñëpp daanaka du contrat durée indéterminée la loolu sax dina tax ba bu ñu dooree lii di campagne bi ñu mën a am lu toll ci cinq mille jàpp six mille ci ay liggéeykat yoo xamante ne nii ci saison bu ne loolu nag day daal di firnde rek ni ah, Sonacos kër la goo xamante ne nii daanaka rek mën na indi ay emploi ci ndaw yi waaye tamit nag teewaayam ci gox yeeg gox. Ce qui peut faire atteindre le niveau de recrutement de la Sonacos jusqu'à 7000 emplois je pense qu'il y a peu, peu de sociétés dans ce pays. Waxon na len ko it euh, ci biñuy ñuy door ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ña zone A ñom nak euh, ndox mu bon mo len sonal mo waral nak ñu wo taskatu xibaar yi ngir rek woné sen nakar ci li nga xamantene nak mom moy yex yex biñu setlu ci liggéey bi nga xamantene moo jëm ci yile liggéey waroon na door nag atum mille 2021 jeex atum deux waaye boobu ba léegi nag mu mel ni nag ñi ngi ci mille 2024 te liggéey ba jeexagul suñu sukkandikoo nag ci ay kàddu Sidi Paye nekk conseil municipal euh, ca mairie bu Grand Dakar ay weer a ngi nii ndox mu bon yëpp ndox mu bon mépp dañ ko daal di euh, sotti fa nga xamante ne nag moom mooy Euh, zone A fa lay euh, balle ci euh, mbedd yi looloo waral nak ñom li nga xamantene mom lañ bëgg rek moy directeur bi nga xamantene mom moy mooy ONAS mu daal ci taxaw temm ngir dakkal li nga xamantene nak mom moom mooy métit bi ñuy dundu sa su ne Mansour Diassé mako ko micro damay commencé ci wax ne que projet bi 2021 la commencé biñ ko annoncé ñun ñëpp dañu tàccu parce que day day changer réseau dégagement eau usée yi mais depuis 6 mois vraiment nous avons vu que dañu gis ne zone A bi ñu fi eggee l'eau usée ndoxu tilim yi jàllatul ndoxu bouché bi jàllatul li ñu ko mën a waxee bu jàllatul nag dafay refoulé mooy li ngeen gis ci mbedd yi day refoulé ci mbedd yi même ci biir kër yi am na kër yoo xamante ni euh, ngeen baal ma kàddu yi pour ñu dem gannaaw kër ndox bi day gënaat ci seen kaw. dañu nag bi yoon nag comme nawet baa ngi ñëw te vraiment wóorul mun nañu inondé ñu woote vraiment laaj ndimbal ndimbal vraiment ndimbal la ndimbal mi ngi jëm ci entreprise yi mooy Kako mooy mooy Enan Moi, ONAS parce que ñoom ñoo depuis 2021. Mais mairie accompagner parce que travaux travail est là. de travail travaux en charge On na mairie yi wax mairie rek dimbal. deux ans lay def donc deux ans mais dañu seetlu yeneen HLM Biscuiterie yi nous avons blocage et nous, vraiment depuis six mois nous avons la di ball ci kër yi di ball ci kër yi di ball ci mbedd yi di nga école bi nekk fi suñu ginnaaw saint pierre ba xale yi wàccee 5 heures dañuy tëb tëb tëb tëb ba ba ba ba mun génn ci ndox bi. il ah, y avait des responsables qui sont venus ñëw fii taxaw wax ñëpp ñëpp on a vu tout le monde responsable. ca mbuur rawatina nag ca oncad beneen jàkkaarloog taskatu xibaar am na fa ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay yeewoo ñoo leen woo ngir rek naqarlu ñoom it lu tolloog téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay parcelles. yu ah, ñu nag seddoo ca gox boobule li ñu bëgg rek mooy ñu jolloo leen li nga xamante ne mooy seen ko suuf ah, ñu daal di nag ah, artu ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy kilifa yi réew mi ngir rek ñu daal di ci saafara rawati eh, indi saafara rawatina nag njiitum réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu teewlu Diaboula mbay eh, ci micro Astou Sow Ousmane bi tey benn tubaab bu ñuy wax moo ko demandé woon au niveau du président pour lan ay losements sociaux maanaam comme ñi niñ ko waxee ñi nga xam ne amuñu doole mu jox leen ko ñuy fay ndànk-ndànk ba seen i sët man ko fay ci lañ fi toog ci la fi ñu fi nekkoon dëkk jox leen ko ñoo yoroon sécurité bi parce que alal gi ni mu tolloon am ko fa nekk ci lañ fi nekk nekk fi benn instant la mairie bi fi nekkoon parce que sàcc gi dafa yàgg léegi bi loolu amee sama grande surprise c'est Issa Sall mi ngeen di wax maa ngi moom ay mbokk la nijaay la ci moon mais booy xool ku bon ku bon ak ku bañ mbuur mooy Seydou Sall lépp lu mbuur doon bañ tey tey tey boo gisee da ko daganal te or ko bo dafa am lu mu doon wax naan fépp lu mbuur waa doon taxaw di def lu baax boo gëstoo di nga ko gis mais tey la mbuur gën a bon tey la tey yi gën bon barki dem ba Ndiaye gis baadoo la ngi jooy ñuy jël seeni terrain pour lan léegi fi mu li ñuy wax mooy le président Bassirou Diomaye Faye li sa démb jëm nga jàngee bayal bi kenn du la ko xam nga ko ndax njagañaaw nga dëkk di nga fi jaar dañ lay wax la nga def mbuur Thiès li gën a garaaw mu ngi mbuur dañ ñuy sàcc di ñu jaay doole daawoon nañ ñu tëj te ñuy xeex ci dëgg comme tey jub ak jubanti mooyam bu ci yërëm kenn procureur bu fi sàcc nañ ko teg ci yoon parce que procureur bi tëj sàcc buñ ko joxee terrain boo xam ne c'est du vol moom waru ko laal mais juge tout ñoom ñëpp ci lañ bokk ca Kédougou it euh, sagar ma ngay xeeñ ndax li nga xamante ne moom mooy exploitation or bi dafa tagga témbe foofu lay ca Kédougou délégué ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk ca Sabodala Gold euh, ñoom nag dañoo décider banque seen loxo démb bi euh, vingt heures jotee ci fépp fuy site de production foofu ca Sabodala Gold nga xamante ne nag moom moo jiite kuréel bile Euh, li nga xamante ne nag moom mooy seen euh, naqar mooy rek euh, ñi nga xamante ne saa xaatimoon nañ ko ci ab xaatimok déggoo seen digg ak direction de l'entreprise ak diggante direction bi ak employé boobu ba léegi 2016 ak léegi dañ ne France ndax appliqué wuñ ko benn yoon Aïssatou Ba mooñ ci indil ay leeral liggéeykat yi nekkee ci entreprise boobee di sabodola Gold di yëngu ci wàllum or ñooy ñaawlu article bi nga xamante ne moom moo sóoraale ab forfait ci heure supplémentaire yi nga xamante ne ak cadre yi nekkee ca département de production ba daal di nañ koy am bu ñu sukkandikoo ci kii di El Hadji Malik Ñing nekk porte parole yi la liggéeykat yi la heure supplémentaire mosuñu koo fay benn cadre ci boobee bërëb liggéeykaay te li ni mel sax code du travail bu Sénégal sóoraale wu ko donte ne yi la liggéeykat ràññee nañ yéene bu baax bi nga xamantene direction bi amna ko waye ñu ngi ñaawlu ak seen kentalay kàttan bañ bi nga xamne bañ nañ seen indemnité compensatrice mu nekk ay avantages yi nga xamne am nañ ko ci seen valeur nominale ci atub 2022 boobee coow sax mo waral yile kat teunku ci ab ben collège daal saisir inspection du travail ak bu sécurité bi nga xamantene mo nekké fofé ci ca Kédougou nañ ci dox ay tànku jàmm ngir ñu waxtaanee ko waye dafa melni ali ni mel wul lolo tax kat nak daal décrété décréter ab grève bo amul fumu ngir ñu mën leen jox seen ak ak yelleef ci bobé entreprise. batay ñu desandi ci suñu bokk moomeel société bi nga xamante nak nag moy euh, def luy Euh, fii ci Sénégal ak école nationale de supé euh, supérieur des métiers des mines et de la géologie ñoom nag euh, def nañ ab xaatimuk déggoo semi seen nag li mu bëgg mooy bile école nekk nag grenier boo xamante ne maanaam dencukaay képp koo xam ne nag borom xam-xam nga ngir rek ñu daal di ñoŋal li nga xamante ne nag moom mooy secteur minier yi looloo waral nag ci ab visite bu directeur des société des mines def Euh, dem foofu ca établissement la ngir rek daal di xam nag la nga xamante ne euh, moom mooy ay installation yu fa jot a am ak seeni condition wu liggéey am satu gànnaaw moo ñu fa teewaloon. société des mines bu Sénégal bëgg naa dooleel école nationale supérieure buy yëngu ci tàggat ndaw ñi ci wàllum exploitation minière ak lépp lu ko laalee ba mu nekk compagnie nationale minière bu mucc ayib fii ci réewum Sénégal ndax jamono ji sax li mel moo nekk seen mbëbët ba tax na njiitu société bi daal di sol ay dàllam ngir dem nemmeeku installation yu fa jot a am waaye tamit daal di xool ci yan anam la ñu nekk. d'abord Nous avons visité le laboratoire de l'école. Nous avons trouvé, euh, en tout cas, des efforts dans ce cadre. Aujourd'hui, ils ont produit des échantillons de pavés euh, à partir du silex et de, et de l'argile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir cette, recherche, il faut expérimenter, il faut soutenir la recherche, mais une recherche orientée vers le développement, une recherche appliquée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'il faut faire pour équiper ce laboratoire Pour que l'école soit aux normes, pour que l'école soit dans les meilleures conditions, pour satisfaire notre demande. Exploitation minière

laaj ay matériels yoo xam ne euh, yu mucc ayib la. déggo bi nga xamante ni société des mines bu Sénégal ak école nationale bii di yëngu ci wàllum exploitation minière xaatim nañ ko mun naa yóbbu réewum Sénégal ci yoonum développement. journée reboisement moo am ca Touba Mbacké ci ab entretien nag bu waa APS suñu jagañaale wala suñu naataango yafa nekk daal di def ak euh, ministre professeur euh, Daouda Ngom euh, moom nag mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ jiñu ñu dénk alam bi ak transition écologique ñëwaat na ci li tax mu daal di tànn bile. Euh, région ngir rek euh, mom japp na bi bile région euh, dafa wow tek ci tamit tangor ba taxna fofu garab ya taxu ko bëri waral nak ñu daal di fa wara a defaat li nga xamantene Mom moy jëmbat ay garab ngir dëkk ba daal di nat mom na manga Mangasa moo ko micro Il s'est trouvé que ces dernières années, Djourbel n'était pas parmi les régions ciblées. boo xoolee ci ay at ci gannaaw euh, lii di Diourbel bokkutoon ci région yi nga xamante ne nii tànnoon nañ ko naka noonu tamit Touba it bokkutoon ci commune yi nga xamante ne nii tànnoon nañ ngir daal di mën a dalloo bés bi nga xamante moom la ñu jagleel lii di jëmbatub garab euh, loolu nag xel mu na ko nangu ndax Touba dafa bokk ci région bu Diourbel te ñëpp xam nañ ni Diourbel ci wàllum environnement da cay dellu gannaaw ndax amul benn forêt classée bu fa am amul itamit li jëm ci wàllum géej wala itamit nag ba ci sax dex ak yi ñu mel dëkk yi nga xamante ne ci diwaanu Sénégal euh, li nga xamante ne moo jëm ci euh, wàllum environnement daal euh, gën na ci néew moo waral sax nag at mi ñu jàpp ni war nañ fa mën a dem ngir daal di mën a suqali li nga xamante ni moom moo di gox ba leen fa fas yéene amal nag moo di jëmbat ay garab bokk na ci nag ci li nga xamante ni moo di wàllum màng ndax xam nañ ni bokk na ci ferñeent yi nga xamante ni daanaka ci wàllum dund askan dañ koy soxla waaye tamit nag ci bànqaas ci wàllum keppaar ngir nga mën fa xeex waaye tamit ngir nga mën a itamit am euh, li nga xamante ni mooy dund gu feex daanaka da ci bokk moo waral sax ba thème bi ñu daal di tànn ren ngir waxtaanee ko bokk na ci lii di jëmbatub garab solos gi nga xamante ne am na ko ci dund ba doomu aadama waaye tamit ñu mën a fexe tamit def lii di garab ngir mu daal di li nga xamante ni moom mooy suñu yitte daanaka loolu moo waral ñu daal di tànn bi de gox di Jurbel ngir amale ren li nga xamante ne mooy bés bu njëkk ñu euh, jagleel lii di jëmbatu garab

Euh, ñu gis ne nag lii métit loolu ki nga xamante ne mooy Amar Thiam jiite nag mouvement justice sans frontière euh, métit lu na ko ndax li nga xamante ne moom moo tëj botam moo boppam euh, mooy condition yi nga xamante ne nag ñoom la jeunes yi nekkee foofu nan lañ leen jàppee looloo waral muy ñaan autorité yi nga xamante ne ñoom ñooy autorité mauritanienne ngir rekk ñu waxtaan ak euh, autorité yu Sénégal euh, ngir ñu delloo si yile xale ci nu mu gën a gaawee ñu teg teewlu professeur euh, Amath Thiam mu ngi woon moom ci téléphone la sekkoon waxtaan ak Ndella Ndiaye. après bi ñu jàppee yenn Sénégalais yi fële ci réew bi ñu koy tey am na ay yeneen serom Sénégalais yoo xam leen jàppee ci Mauritanie justice sans frontière nag mi ngi naxalu vraiment sénégalais yi ñeen dund bund xatalee buñ génnee réew mi war a dem tukki c'est comme si amuñ droit le respect d'aller et revenir même si parfois yoon yi ñuy jël di ko def c'est nekkul yoon yoo xam ne yoon da ko dégle waaye nag euh, ñu ngi leen di sàkku ji nga xam ne ñi ngi ci loxo yu doomu seen ñëw téye doomu sénégalais yooyu ñu respecté leen seen dignité seen ak ak seen yelleef doomu adama te bañ leen teg benn métital bañ leen teg benn fitna euh, respecté lépp loo xam ne yoon may leen ko droit humanitaire may na leen ko ñu ngi sàkk aussi ci autorité sénégalaise yi ñu gën a baral seen politique ci wàllu migration bi ainsi euh, créer condition un climat apaisé entre les pays yi nga xam ne fa la doomi yi nekk ñu téye leen comme ça jàmm mën a del si xale yi mën a del seen réew dellu seen i famille voilà en tout cas en justice sans frontières mu ngi ci côté état du Sénégal vraiment di ko jàppale dans ses politiques publiques pour que ñu jéem a xool yan solution la ñu pour régler ce phénomène bi nga xam dafa dépassé actuellement quasiment Afrique. ñu wax ci euh, waa wàllum euh, njàng meek njàngale mi ci daara yu kawe yi inscription nouveau bachelier yi nag dina tàmbali fukki fan ak ñeent ci weeru août atum deux mille vingt quatre euh, jàpp nag dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bu vingt trois cinquante neuf jotee bile plateforme nag dañ ko tijjil. étudiants yi nga xamantene nak nag amoon autorisation d'inscription ci ben établissement Omar Lamine Diogu nek étudiant en licence 3 ci fac droit euh, teg ci nek membre amical bi nak mi ngi rafetlu bile euh, décision waye nak limu bëgg nak moy ñu commencer li nga xamantene ne inscription yi ci nu mu gën a teelee ndaxaat yëpp dañu gis ne na euh, inscription yi dafay nekk luy yéex moom it seqoon na waxtaan ci téléphone ak Mansour Diassé dañ koy rafet vraiment régime bi nii gis nañ ni rupture bi nga xamante ne moom lañ doon woote avant ñi ñëw jël nguur gi en tout cas ñu ngi koy wone donc dafa doon am retard si li nga xamante ne moo di l'inscription des étudiants des fois étudiants yi les nouveaux bacheliers euh, Campusen dafa doon tiddi peut-être ay mois de octobre tem novembre décembre dafa doon accusé benn retard si le cursus universitaire mais avec vraiment euh, ouverture Campusen vraiment on a l'espoir que étudiants les nouveaux bacheliers surtout dinañ teel a rejoindre université année buy ñëw nii dinañ teel a rejoindre peut-être même dès janvier dinañ reprendre dinañ commencé seen jàng et loolu loolu dina permettre vraiment cursus universitaire bi bañ a am retard comme les années passées et di ñaaxaat nguur gi vraiment ñi ñi nekk ci lancé boobu noonu vraiment et ñi dimbali surtout étudiants vraiment manquer ngi voilà rafetlu voilà impact bu muy am surtout mooy euh, dama ne loolu noonu dina dina permettre étudiants surtout retard bi nga xamante ne dañ ko daan constater ces années passées benn retard bu notoire bi ñuy gis dina dina génne en tout cas ce retard là parce que par exemple di nga gis un étudiant bi nga xamante ne euh, ci benn année par exemple licence comme en plus de deux parce que à cause de ce retard là au lieu que par exemple nous terminions peut-être au mois d'octobre da parfois année bi day prolonger mois de février yeneen faculté yi gis qui nekk foofu rattrapage mois de février la pour xam seen résultat pour xam est-ce que au niveau supérieur ou pas tout ça parce que lan euh, retard nous inscrire aussi campus ak aussi retard au sein de l'université nàmpal nag nekk lu baax euh, ci ab euh, liir looloo waral nag euh, ñu gis ne nag nampal semaine bi di benn ayu bés jàpp at démb benn fan ci weeru août di jàpp juróom fan ci weeru août comme at mu nekk dañuy màggal li nga xamante ne moom mooy nàmpal ci àdduna wërngal këpp ñu gis ne nag docteur bi di umar Konaté nekk médecin généraliste mi ngi wax li nga xamante ne nag moom mooy njëriñal euh, li nga xamante ne moom mooy soow ci euh, doomu aadama euh, ma rawatina nag liir moom nag moom it seqoon na waxtaan ci téléphone ak Khady meew bi nga xam ne dañ koy yaay yi dañ koy jox par ween bi li ñuy wax allaitement maternel moom mooy meew bi nga xam ne moom moo gën pour xale yi pour seen màggaay euh, meew boobu dafa nekk meew boo xam ne dafa riche ci ay euh, ay ferñeent genre euh, lu ñuy wax protéine glucide ak lu ñuy wax matière grasse mooy graisse ak diw ak yooyu et puis dafay andi ay minéraux yu bëri andi vitamine yu bëri allaitement maternel nag dafa bëri ay ay gëneel je gënal bi ci bi moom mooy euh, li wax euh, euh, relation mère enfant yaay boo xam ne dafay nampal doomam bokkul ak koo xam ne doom bi koo xam ne dafay am relation boo xam ne diggante ak doom ji dañuy day nekk relation forte donc euh, ñoom ñaar dañuy euh, dañuy déggoo ba nga xam ne que du bare loo xam ne dina mën a dugg seen diggante tellement que ñoom dañuy euh, dañuy nekk ay complice ñu jàll ci xibaaru euh, bitim réew ca Mauritanie nag euh, ab cérémonie de prestation mu fa amoon euh, président bi di Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani am nag juróom-ñaar juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci ay at moom nag waat na ci kanamu conseil constitutionnel ak ay njiitu réew yu juge Euh, ci Afrique wërngal këpp li koy xaar ci li gën a jant nag euh, jàmp nag bokk na euh, ci wàllum kaaraange xeex ngir ndool corruption ak li nga xamante ne moom mooy inégalité sociale redistribution des richesses yooyu nag ñooy yi koy xaar li koy leneen li koy xaar bokk na ci mu daal di defar gouvernement nu ci nu mu gën a gaawee ñu ngi koy xaar nag mardi bi ñu jëm Euh, loolu nag euh, mauritanien yëpp ñu ngi koy bàyyeegum xel ñu jàll ca Iran euh, dëj bu metti ba fa am nag tey jii la woon nag julle ba dëju nag chef politique Hamas di Ismaël Haniyeh moom mi nga xamante ne dañ ko rey foofu ca capital bu Iran Ah, dara waralu ko lu dul ab ndel bu waa Israël daal di ah, sànni ah, bile xew-xew nag ñi ngi ci doon xëy na naam ñi ngi woon ci dëj waaye li ñu bëgg rek mooy daal di fayul dee boo xamante ne nag dee bu metti bu nga xamante ne Ismaël Haniyeh daal na koy dee foofu ca Iran ca université bu Téhéran nag guide suprême iranien di Ayatollah Ali ne euh, moom moo daal di jullee nag Ismaël Haniyeh ak ki nga xamante ne moom mooy garde du corps ñu daal di leen di muur drapeau bu Palestine chef du Hamas nag di Ismaël Haniyeh moom danañ ko denc vendredi ca Qatar ba nga xamante ne nag foofu la demoon euh, foofu la dëkkoon daanaka euh, fan yi nga xamante ne nag mu nga nekkoon ci exil ñu jàll ci mujjantelu élément bi nga xamante ne moo war a buur yi lay xibaar Kremlin ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy yi daal di nañuy déggoo ngir daal di weccante ñaar fukk ak juróom euh, benn ci ay prisonniers euh, ñaar fukk ak juróom-ñeent yi sax moom moo gën a leer euh, lu ci ci ñooñ nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkoon ay prisonniers ay américains bëri nañ ci waaye journaliste ba nga xamante ne ca Wall Street Journal doon liggéey di Evan Jerkovich moom mi nga xamante ne dañ ko dencoon Russie nag 2023 ba fii ñu tollu tembe jàpp nañ ne nag jeudi maanaam démb euh, ci premier août ci lañ xamle nag bile xibaar euh, Turquie nag moom sax daal dinay dëggal ne foofu ca Ankara dana daal di coordonné bile weccantey prisonnier maam Awa Sall xuus na ci. ab déggoo dox seenub diggante ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama yu ñu jàppoon bokkoon ci lu gën a am solo depuis guerre froide bi ñoo ngi bëgg ma libération bu ex marine Paul bu ñu sukkandikoo ci waa ABC di xam ne ni yeneeni dëkk war nañu bokk ci boobu boobule libération boobule weccoo dox diggante Russie ak yeneen ci ay réew yu Europe mooy bu njëkk gannaaw ba ñu libéré basketteuse bii di Brianne Griner ci atum 2022 te ñu tëjoon ko ci affaire ñool lu jëm ci ci wàllum trafic d'armes ca États-Unis kii di Vladimir Poutine moom dalal na ñii di prisonnier yi te ñu teewoon leen kii di ex président bu Russie itam moo ngi jaajëfal yooyu la ndaw yu ñu teeyoon ab prisonnier bu dëkkee ca Russie moom jàppoon nañ ko ca Allemagne tuumaal ko faat bakkan moom nag jébbal nañ ko waa dëkkam baneenub journaliste bu russo espagnol la bu ñu arrêté na fële ca Pologne itam libéré nañ ko ba yóbbuwaat ko dëkkam di jërëjëf maam Awa ci leeral mbokki mbokk yi li moo buur uh, xibaaru marax bi ñu leen di jëfal bu baax ci teewlu bi ci uh, leen ñaan ngeen wéy ak suñuy programme uh, bu 20h jotee Ourey Fall Diouf dina fi teew ngir dégte leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ci loolu nag ñu ngi jaajëfal bu baax équipe technique bi nga xamante ne ñoo jàpp ci xibaar yi ba mu yem ba semaine bi yëpp sax ak rédaction bu global télévision nga xam ne dañuy def seen kéem kàttan ngeen am xibaar yi wér te wóor ñu leen di ñaanal nag juma mubarak di leen ñaanal it fanaanuk jàmm jër ngeen jëf